waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne nag tey ñu ngi fas yéene waxtaanee ci lu gàtt waaye te gudd moo di jikko du noonu ba jikko nag jigéen ñi ngeen may ma tuuti rek dama wax keroog ca Lamine Jéey dama wax keroog ca yàgg saal ca réew ma leen thème bii ñuy waxtaane ñoom góor ñëpp a nga foog mu doon tawxiid ma ne leen li muy rëy rëy rëy jikko moo koy feeñ loolu laa waxam ca moom ndax boo gisee yonent bi njëkk a woote fukki at yoo xam ne julli amul woor amul azaka amul dara amul boobu jikko yi la doon defar bëgg nit ñi seen jikko yi baax ba bu charia wàccee du doog loxo kenn du rey kenn du tëj kenn kaso jikko rek moo mën a yar nit ba lu dëkk lëb-lëb nga teg fii sa àll génn dem ñëwaat fekk ko fii kenn du ko laal loolu jikko rek ko ko gendarme bu taxaw mënu ko policier bu taxaw mënu ko keneen mënu ko te dina feeñ ci biir waxtaan moo tax ñu sant leen ci thème bi ngeen tànn mu di jikko damay wax ne àddina bi jikko bareetu bi rawate nag Sénégal ga ñu dëkk fii sax tane na tubaab yi am nañ jikko de am nañu jikko léeg-léeg nga dégg ñu naan tubaab yi amuñu jikko tubaab yi la preuve damay def kenn entre parenthèse laay def ku bëgg ci kenn mu ne ci arab moom la ñuy wax muqaddima préface lay jox rek dama ni li tax ñu war waxtaan waxtaanee jikko fii jikko am na fi Sénégal amoon nañu jikko waaye jikko yaa ngay jeex daan ngeen dégg mbokk bu baax yal na yàlla dolli yërmandeem te dolli leeram te yéegal ko ca barzaq Cheikh Sidi Ahmad Tidiane muy alxaaji Sidi Lamine Niass daal na faral di ko tudd lu bari ci waxtaanam ku bëggoon wax bii la muy innamal umamul axlaaqu ma baqiya fa inhumu zahabat ahla axlaaquhumu zahabu man Alaaji Abdoulaye jëkk a dégg mu wax woy boobu benn arab moo wax ni xeet yëpp ñu ngi leen di jàpp ci seen jikko bu seen jikko baaxee dëkk ba baax bu seen jikko bonee dëkk ba bon moo tax nañ def très attention te jikko ci la yàlla di jàpp ni mën na la julli ba beraw julli kaat dëkkeel koor ba doo tëb sax bés bés bu set nga woor dëkkeel naafila doo nelaw guddi ba bër set dëkkeel saraxe loo am jox dëkkal yoonu Makka weer wu jot nga def dëkkal yoonu Fees weer wu jot nga def dëkkal fu la neex looy defal yàlla te amoo jikko ci zéro lay wut du ca yem sax multiplier par zéro parce que jikko la yàlla soxla ci nit rasulullah li muy baax baax baax baax baax alquran ji wàcc ci moom te dara gënul rëy alquran baqara be naasi Faatiha Baqara bi Naas lépp ci yonent bi la wàcc 23 moom la ko yàlla wàccee ci moom xam nga dina tuuti 6666 aay mu nekk ci boppam 114 saar Baqara rek pour sani jàngin bii mu ko jàng mu ko jàng une mu ko jàng deux heures une ci jàngin bi ma tegoon léegi bàqara kese deux heures une minute la ko jàng te yonent bee ko gënoon a tey nu muy jàngi foo ko gënoon a neex baat kon ci ñaata la doon jàng bàqara bàqara benn naa si yàlla def ko ci boppam dem bene law anzalna haza alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyatillah su ma jëloon alquran ci benn aaya wàccee ko ci benn montagne bi gën a rëy ci Makka ñu ne ko am ah, mu ne montagne bi dana écrasé wu nekk poussière di naaw ndax du ko attan kon bopp du ko yenu gaara la cent vingt quatre mille yonent la yàlla yooyu trois cent treize yi ñoo nekk ci bopp ba mu seggaat vingt cinq yonent bi bokkaat ci bopp ba mu seggaat ci vingt cinq yi ah cinq yonent bi jël premier waaye loolu yëpp ànd ak loolu yëpp yàlla takku ko ci Quraysh baax na par loolu bu xëy bu onacé su ma Quraysh moom ne ko Seydi Hadji Malick wax waaye li Quraysh di baax mu bokk ci biir bu baax yi bokk ci famille bu baax yàlla takku ko ndax famille wala fi mu bokk dafa jël yëpp teg fay ne ko maa ngi lay xool diiran bi nga fi ganee àddina diir bi nga fi nekk yaa ngi biir Makka jëfoo fa jëf ju ñaaw dëngaloo fa ba ñépp say bàyyi say maam maase te yónniwuma la ñu tuddee la tur woo xam ne ñépp a ci kontaan moo di al amin yaakaar naa ñëpp jigéen ñi am naa dégg ngeen al amin looluy sababi al amin looluy sababi al amin bi ko yàlla di bi ko waa Màkka di tuddee al amin xam ngeen ñaata at la douze ans douze ans al amin mooy ku ñu wóolu bi booba yàlla yónnee ko ko mais xam nga xale pam ñii ñu man ñu dangereux lañu dee leen seet nag li ñuy foyee ngeen orienté leen Abdoulatif Gueye yal na ko yàlla yërëm moo daan wax ne man de sama doom dama leen di seet léeg-léeg ma gis koy foogam yàgg mu seet ne yéeg leen may fas mu ne ma ñëw rek gàtt ko ne ko wàccal nekkal kii yéeg tey waaye mu nekk fas mu mooy dëgg dee leen seet yi xale yi di foye boo ci gisee bu jël këyit wala bant naan tuy tuy tuy ne ko la rey kaay jëlal bi lépp en général li ñuy foyee la ñuy doon am naa ci benn jarbaat am nañu ko xam Souleymane sama sœur bu boo xam ne suñ ndey yee bokk bàyyi ndey Cissé am bi muy nekk soo ko nekk xale bu ndaw am ay 10 comme man samay nijaay yi ay colonel lañ ñu bëri xam nañ ne colonel Cheikh Tidiane Diouf capitaine Ousseynou Diouf samay liggéey ci armée bi lañ ci armée bi lañ nekk ñoom la tàmm di gis danaa nekk ci suñu kër dafa sës ci géej gi léeg day dem ci géej gi yor bànkam di maaj rek di maaj foo ko fekkee Souleymane nii lan man capitaine laa ba yaay dogala wax ne Souleymane di nga dox ci biir di tefe su géej gii de xam ngeen léegi lan la gendarme la mu nga fi may wax ak yéen mu ngi Congo ci mission Congo bi la ko Sidi Mbaye Sidi Mbaye bii di woy bii di woy Tiwaawan di doomu daaw góor Mbaye di nijaayu Abdou Aziz Mbaye daaw góor Sidi Mbaye moo ko nekk li ma dégg ci suñ di spécial collecte bi ñuy def mu ne moom bi ñuy xale moom ay bant la daan jël bant def ko micro di woy ne maay Abdou Aziz Mbaye tey mboolem ku aju ci waawoon moo ci gën a niru Abdou Aziz Mbaye Ba da ngay foog sax Abdou Aziz Mbaye bu jur te doomu nijaayam ci col ak ci baar ak ci lépp macha allah parce que li mu bëggoon te ba muy ndaw la ko yàlla incarné loo bi nekkee mag kon maa ngi leen di ñaan entre parenthèse seen doom yi na ngeen leen di surveiller ci yi ñuy foye ngeen orienté foofu ngeen jël di defee les orientation boo gisee muy fayee loo xam ne si violent woo ko bul dóor bul saaga woo ko jox ko tuuti bongo jox ko tuuti xaalis neexal ko ne ko lii bu ko fayee c'est pas bien wax ko wax ko wax ko parce que c'est nangam nangam nangam xale boo ko yeddee ñaari yoon rek mu dégg boo léegi dina ko éviter nga di ko orienté ci sens bi nga bëgg yow xale orientation lañ koy defal benn am jikko ji dinaa ci dugg si biir. moo tax yonent bi bi mu tolloo ci à l'âge de 12 ans loolu na ci ñëpp bàyyi xel nañ déglu li may wax bu baax la tax ñu tuddee ko al amin magi màkk dañ ko seet day gis bu xale yi di fo moom bu beru fële waaye wala bu nekkee ci biir xale yi di fo sax na muy doxalee ñu seetlu ne kii daal beneen beneen beneen xale la bokk la xale yi te boobu xaalis ñu ko yónni mujj bi. mag mu ci am looy nëpp wala looy lëkkaale da ngay ñëw jox ko ko ne ko dencal dana ko denc te maamam du ko yëg bàyyam Abu Taalib du ko yëg kenn du ko yëg la indi tudd nag dafa am bés ñu dem bekkaaroo ji ñu war ko yeesalaat ñu defar kaaba gi yeesalaat ko ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala moo tax yonent bi ñu ko yónni mu ne su ma bañ a toog bu ñëw yeesal ko danaa ko defar na ko maam Ibrahima defaree woon sama maam mu ne waaye damay bañ ma jóge fi ku ñëw ko loolu laay bañ te lii ndigalu yàlla tax nit defar mu bàyyi nii ba ñuy yeesalaat kaaba gi nag boobu yonent ko waaye yónnee ko boobu mu ngi am 17 ans am na 17 ans lu bi ñu defaree kaaba gi ba noppi nag xajarul aswad faak nii fa mujj ci ñi fa mujj la bokk boobu xajarul aswad benn pierre la xeer la bu jógee àjjana yàlla jox ko Jibril mu ñëw placé ko ci kaaba bi fa mu nekk tey ci wërngal boobu yàlla xam lu tax mu placé ko boo fa demee dañ sopp nga fóon ko boo ko mënta fóon boo demee ba jub ko nga yëkkati sa loxo fóon sa ndax bari waaye nit donc du ñëpp ko mën a fóot ñu séddale ko ndànk moo tax ñu demee nag ba war a jël xadara xajaratul aswad dugal ko comme waroon na dugg coow bi pour dañuy bëgg a yàgg lu indi coow bi mooy ñëpp unanimité dañ ne buñ bàyyee giiru xoree dugal ko ko ñooy am ndam ba faw xam nga doo koy déggee mooy njóobeen njaareen paaleen ak ngengeen boobu ñeenti xabiil yooyu ñoo fa amoon ñeenti kii yooyu ci waxin rek pour ngeen dégg njóobeen njaayeen baaleen mooy faaleen ak mbeggeen waa njóobeen ne buñ ko defee waa ñoom ñooy am wëy ba faw kenn dootul am wëy ku ne di xëccoo ne suñ famille suñ xeet ñoo ko fay dugal bi xëccoo bi bare ñu ne nii da jarul rayante bi suñ ko defee daal di ba jeex benn mag ne ñu ne kon li benn mag ne leen nañ def ni ñëpp nañ teg xeer yi te ñun ñëpp ñuy xool ci buntu bi am na ñu ne baabu salaam ku njëkk a dugg ci génnee ci buntu bi ñëw rek ak fu mu mën a bokk nañu tegal xeer yi ci place ne d'accord ngeen

mosoo fi tuumaal kenn mosoo fi yàq deru kenn kenn xamee woon na lu ñaaw anta aminun al al amin keroog lañ ko tuddee al amin yow anta aminun yow ku wóor nettali ko li am yëpp ne ko nag dañ bëggoon nga xeer wii lañ bëggoon kan moo ko war a dugal ci palaasam fi mu nekk yonent bi muñ donc te yàlla yónneeku ko mu ne leen neex naa rek ñu ne ko noo koy rek mu ne dem leen ñu ma sër bu yàgg ñu indil ko benn sër comme malaan wasifa yi mu ne lal leen ko ñu lal malaan yi Ibrahima sama turandoo man xam maa ngi lay nuyuwaale ak kaw Fassane teg Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax yow miy takk yonent bi laa wax. Abdoulaye Abdoulaye kon yonent bi indilu nag. sër bi ñu lal malaat bi comme ni ñuy lalee malaat woon yonent bi dem ci xajarul aswad jël ko loxo bu tedd ba teg ko ci diggi malaat bi yéen a ngi dégg alaaji bu saaba daan na wax su may waxtaan kuy séddale lekk yaa may tooñ ñu ne ko lu tax mu ne ndax booy séddale lekk may waxtaan kenn dootuma dugg ñu ne ko lu tax mu ne kii kañ wax talatuma mu ne ngañam ngañam ñu ne kii mu ne kii kañ joxam taluma ndax mu koy yëkkam talu ndax mu ne excité moom wala ko excité te ñaar yooyu dafa fi nekk yaakaar ki jot ba mu pare di yëkkam di di sàqamu ak ki jotagul di yëkkam talu naan balaa yegg si ci man baa di jeex waaye yëpp mën nañ ko maye rek waaye ñu def ko ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël xajarul aswad ci loxo bu tedd teg ko ci tukki malaan bi dinaa bii de rafet na waaye mu des nag du ñu yëkkatee malaan bi par exemple damay joxe exemple rek mu ne famille beeg ngeen sëñ Modou beeg bi mu ne waaw yaay seet mag ñu ne waaw moo mag ci bërëb bi de ci beeg ngeen mu ne jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko tiir ci cat bi mu téye mu ne famille xaaree. Moustapha Fall ñu ne waaw mu ne yaa mag ñu ne waaw moo mag ci Paale mag yi ñu toog mu ko téye ci cat bii mu mu ne famille Ndiobé ku ci yaa ci mag de waaw waaw mu ne ko téye ci cat ci des mu téye mu ne famille ku ci mag tey xanaa gis Abdoulaye Ndiaye. ñu ne ah léegi moom mag ci famille Ndiaye de mu ne tiwéen ci koñ bi ci des xanaa ñeenti famille yi mag na mu ne ah mu ne yëkkatee leen lool ñëpp yëkkatee lool. mu ne dem leen ba ci kaaba bi ñu dem ba ci kaaba bi mu ne téye leen de ñoom ñëpp ñu téye moom rasulullah mu jël xajarul aswad ci loxo posé ko tey fa nekk kenn laalaatu ko ba bis tey loolu lu ko ko may jikko jikko moo ko ko

wala déedéet bu dee koñ bi lu fi réer xel yëpp dem ci yow balaa ñoo natt kenn daañu la natt ba pare. doole yebal nag fu ñuy waxee yëpp dem ci yow jar loolu nag jikkoo koy may nit rasulullahi jikkoo ko may li mu jikkoo ko ko may ak lim bokk bokk ci famille bu baax ndax fa bokk ci famille bu baax amul njëriñ na ma yàlla baal am na bénéfice waaye amul njëriñ xam nga lu tax tabbat yadaa abii lahab ñun ñëpp jàng nañ wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahabin wa imra'atuhu hammaalatal hatab fii jiidihaa hablun min masad ka ko yàlla wax moo bàyyi yonent bi Abdullahi ñoo bokk benn baay benn baay ñoo ko Abu Talib moo leen Abdul Mutalib moo leen ji yonent bi mel nii moom mu mel ne rek xanaa kon famille amul njëriñ bu loolu famille am na njëriñ moom bàyyi yonent bi ndax moom bàyyi ba kooku benn bàyyi te tey mu nga ci jahannam di daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee danañ koy woyofal mbugal altine bu jot ñu ne ko du tax mu ne keroog bi ma ganee àdduna dafa kontaan bi jaam bi ñëwee ci moom jaam bu jigéen bu mu amoon moo ñëw fekk ko ci kaaba gi mu toog mu ne ko bégal Aminatu bintu am na doom bu jigéen mu ne ah, na doom bu góor astaghfirullah mu ne ko ah mosit maa indi Noël bu neexee nii sama frère bi dem soxnaam am na doom mucc na muy góor tey mbégte bi ma am mosuma ko yow mi ma indil xibaar bi nag goreel naa la yemuma ci boo demee sa néeg lu fa nekkoon yaa ko moom yóbbaale yonent bi nee na mbégte moomu mu amoon keroog bi ma ganee àddina li may bañ bañ ci la yàlla ba altine bu jot duñ ko dugal safara altine bu jot dañ koy génnee safara teg ko ci buntu bi muy féex ko dinaa moo tax ma ne dina safara ni métti da xool safara si rek bu la laale rek sa àddina si moo tax dinaa ne dana yàqam ci altine bu jot malaaka yi dañ koy nguufaan indi ko ci biti muy féexlu ba fajaroo altine jeex talaata dugg rek ñu suubaat ba jaxal ñu ne yonent bi lu ko ko may mu ne te moomu mu amoon keroog bi ma ganee àddina donte man la gën a bay te référence bi ma leen jox ne moom la gën a bay xoolal ñun niñ bëggee rasulullah ba moo ñu dajale te mu gis ko ñaari bëtam yi bañ ko te keroog bi mu ci dee war a dee benn saxaaba ñëw pour jekkani mu ne ko may ma ñëpp foog ne day tuub ñu ne ah, kon nañ ko may xëy na day tuub mu ne tuubuma de xam naa ne fii ma tëdd danga may jekkal waaye dama lay yóbbal mu ne ko bismillah mu ne ko boo demee ci seen waa jooju yonent wax ne ko yàlla bindul ci dëndam bi ku ma gën a bañ ci moom moom rek laa bañ du ma ko bëgg mukk waa ji jekkal xoolal foofu la bañeel yam li koy bañ bañ gis na moo tax nañuy def attention ci yàlla de yàlla du bindeef yàlla du nit yàlla santul ay dal yàlla santul si yàlla santul mbakke yàlla santul faal yàlla santul benn sant ci suñ sant yi laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir yàlla kay yilif mooy yilif ñëpp nañ def très attention ci yàlla yàlla yiliful kenn yilifu ko mooy yilif ñëpp laa yusalu amma yafal wa hum yusalu yàlla ne kenn du ma ne man yàlla pourquoi maa leen di teg ne leen pourquoi ànd ak loolu kii bàyyi yonent bi xoolal fi yonent bi fi yàlla jaaral ko feeg bésër gi am na ki yaay bu yàlla indi nag yow mooy jumi ak sam euh, jumi ak sam su wal xamar bëccëg amatu guddi amatu weer amatu ak amatu foofu nag jaray saxee ci mbugal dara moom Abi Lahab dootu ci jóg ba yowal ba àddina àddina sax jeexaa ko lu ko ko yóbbee ñaaw ci ko te mbokk yi ngeen may ma de déglu leen li may wax de man li may wax daf ma ñor de ay kilomètres laa dagg ñëw fii ngir dara ngir bëgg ñu am yàlla la loolu rek tax su dul dëgg yàlla bu ñibbi dama bëgg ñun ñëpp ñu am yàlla ñu wër jaaree ci suñuy sëriñ ndax nit day am dina ñëw ci biir waxtaan la ko ko yóbbee ñaaw jikko rek la parce que nekkoon na fa ak ñeneen Abu Sufyaan mu nga fa war balaa muy tuub mais exagéré loolu nii nii nii Abi Lahab exagéré wu tuubu Abu Sufyaan kenn moo gën a neex ci tuub yëpp ba mu ñëw di tuub gars yi xàmmee wuñ ko xàmmee bëgg ko rek yonent bi ne bàyyi jullee tisbaar julliwul ñu julli tàkkusaan julliwut julli timis julliwut julli gee ngeen rey ko tisbaar bi bi gaa yi kàbbaare mu jóg rek kàbbaar kàbbaar su waay fekk yonent bi dafa ne Seydina Ali féetee ko ndeyjoor Abu Sufyaan Seydina Omar féetee ko càmmoñ xam nga julli kooku neexal kii téye ci mbaggum ndeyjoor maanaam bokk ko nii baalu kii bokk ko nii Ali bokk ko fii Omar bokk ko fii ñaar ñoom kàttan bu ñuy xëcc ko mu rukkoo bu ñuy su siggi xëcc ko mu siggi bu ñuy sujjóot dóor bi ci suuf tisbaar bi yëpp noonu la ko jullee tàkkusaan bi yëpp noonu la ko jullee ba ci bis mu ne baleen ma ma defal sama bopp ah mu tuub la li li muy li muy dëgër dëgër yàlla nangul na ko ko ba tey mu gaa jël wala déet yàlla li mu mooy defal rek defal wa amma nag nangu na ak nanguwul safara ak àjjana neewul ci loxol kenn ci ñun ci loxol la nekk rafetal jot rek ci rafet ci jaam bi Abu Lahab li ko bi li ko ko indil mooy ñaaw ci ko yonent bi dafa ñëw taxaw sallallahu alayhi wa ne yàlla ma yónni ci yéen fekk daf leen ne dama leen soxla rendez-vous ci ñu ne ko wootee di nga xaw ma looy wootee mu ne kaay leen demal taalaw ila kalimatin sawaan baynana wa baynakum an laa na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattaxida baaduna baadan arbaaban min dunillah woo leen ñoom ñëpp ci kaaba bi ñu taxaw mag ñëpp mu taxaw jàkkaarloog ñoom ñu ne ko loolu ñuy woowee mu ne dama leen di wax ni ñëw leen ñu àndandoo jaamu benn buur boo xam ne moo fi nekk ku ko jaamu jaamu nga jëriñ la ku ko ñàkk jaamu jaamu nga ñàkk laa lor ñàkk koo jaamu boobu daf la xam ne ay lañ te yàllaay suñu borom ñu wéetal ko te jaamu ko an laa naabuda illa allah ba mu waxee ne daaneel rek xam nga toujours foo fekk kuy gërye gërye mooy njëkk a dee rek mu jóg taxaw te ko tabbat laka yaa Muhammad ali hada daawtana yal na nga toskan yal na nga alku yal na nga toroxu yow lii rek a tax nga di ñu woo ñun ñu am ñetti téeméeri yàlla suñ problème sociaux yi réglé wul nga di ñu wax benn yàlla boo xam ne xamuñ fu fu fu mu nekk eh tu nous emmerdes yonent bi ndeysaan ci kersa gi musul yàlla ni jibril demal xale boo fekk muy wax ak mag di tontuwante mag balaa ñuy xam li xew dañ naan xale bi ku réew waaye ne ko na noppi man yàlla mi ko yónni te mag abi lahab ma tontul yàlla mën a tontu utiwul beneen beneen beneen waxin moom yàlla wax bi abi lahab jël moom la jël rek tontu ko ci xam nga daf ko nekk tabbat laka yaa Muhammad alihada daawtana yàlla ne Jibril demal préparé woon naa saar mel noonu tabbat yadaa abi lahab wa ñu ne yàlla doy na bi mu ne déedéet ngeen baal ma benn entre parenthèse dafa mag moo xam ni par exemple dafa am juróom-ñetti fukki kenn koo gis mu rees xam naa dafa mel ni El Hadj kenn mosu ko gis mu rey am na quatre-vingts ans kenn mosu ko gis mu rey ndeysaan sët yi nag xam nga sët ndaw yi di ko nax naxaan maam nag yow reyal nag ñëpp ne nañ mosoo rey mu ne eh, doom man sama rey yow bàyyi leen ma nii rek am naa juróom ñetti fukki at mosuma rey ndax àddina mosuma def lu jàll rey ah sët yi ko nax di ko nax pendant un an ci rek dem ne ne waaw man nag sama rey dañ koy organiser ci stade ba lañ koy yóbbu waa dëkk bi yëpp yàkkam bi aw maam diw day ree suba ndax kenn mosu koo gis ñu ko def ko comme manifestation bu mag defal ko nag benn tribune ci digg bi stade bi fees dal ñu ne maam Samba mooy reete maam Samba mooy reete ndax ñu ko nag seen yi jëlee ko ndeysaan mu daagu daagu bu rafet ñëw taxaw ci pël yi ci digg benn sëñ bi ko ci gën a yëpp tàpp ko ne ko maam reer nag yow it ñëpp ki toog di seetaan sa reer mu ne ah ma reer ñu ne ah, mu xool ñu déetee ñu ne eh, eh ñëpp dee mu geesu ne yoon ne ihi eh, eh, ñëpp dee mu geesu ci am mañ bëgg ak ihi ñu ne ko jël doy na maam ne ah ah daa taar naa ba noppi damay rey côté yëpp benn sët bi wax ko ne ko bu ko tey yëpp dajee nga des fi yow bi nga wéet ndax bu koy bàyyi la ji. ala teel a rey ji. moo tax wolof di léem ne mag moo fekk mu ne ñum waaye kooku ñummam rek ndax xamoo lu tax mu ne ñum rek moo tax léeg-léeg euh, doo xam mbir contexte bi nu mu tëddee bàyyi loolu rek ndax yàlla bi ko xam ba doxalee ko noonu loolu la baaxee. ñu ne yàlla mu ne déedéet tàntaar naa ba noppi tabbat yadaa abii lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu ñu ne yàlla doy lii rek doy mu ne déedéet anhu maaluhu doy wa maa kasaba ñu ko fii doy mu ne sayaslaa naaran zaata lahabin ñu ne ko yàlla doy mu ne wa imra'atuhu ñu ne déet hammaalatul hatab fii jiidihaa hablum min masad tabbat xam nga lu mooy al yadaa xam nga lu tax mu ne yadaa gis ngeen bu may wax geste yi may def lu koy def du loxo nit ay loxom bu daggee sax dootul am tënsi bi de moo tax yàlla en général buy wax nit rek bi maa xaddamat ay jiim loxo ya ay dugg parce que loxo doomu aadama moo ëpp ci ay jëfoo yàlla ne tabbat alku yadaa ñaari loxo abi lahabin ku ñuy wax abi lahab mii doon saaga léegi yonent bi yaa abi lahab kon am nga soxla ñu ne yàlla ñu ne mu ne déedéet wa tabba alpun maa lépp loo xam ne aroon naa am na ko ci alal ba tax muy saaga yonent bi alal jooju de du ko juralati lu dul alkaal ñu ne yàlla doy na nag léegi doy na doy na mu ne déedéet wa maa kasaba lam denc ca trésor ya te génn ko boole naa ñu ne nu muy def ak moom mu ne sa yeslaa naara dana ànd ak alal ja yëpp safara su wax zaada lahabin borom takk-takk loo xam ne bu rëy la bañ laajee yonent bi takk-takk safara si ñuy wax lahab nu mel yàlla indi ko ci beneen saar ka annahu ka annahu jimaalaatun sufr waylun yawma izin lil mukazzibiina ñii ñëpp jàng nañ xam nga lu muy fit yàlla ne étincelle biy jógee ci safara boobu toll na ni gën ka annahu jimalatun sufur li may wax alquran la de imam du alquran xaaji ramadan xam nga gars yi Sénégal dañ tàmm safar safar da koy wax ñu safar wala ay jóor yooyu moo tax may sonn man ci sama waxtaan parce que nit ñi gëstootuñ bëggatuñ xam-xam bëggatuñ dëkk boo leen di wax dëgg ñu mer boo leen di wax xam-xam ñu ne dafa soof li mu bëgg mooy ku leen di nax ku leen di jeey Abdou Latif Gueye rahmatulah alayhi wa radiya anhu daan wax ni Sénégal dafa bëgg ku ko nax ku ko nax ba gisul bu ko nax fay ku ko nax fay rek pour ñu nax ndax tàmm ko ko nax te naxare bi nag dafa war a doy kuñ nax fukki at ak ñeent war ngaa doyal moo tax ka annahum jimaalatun sufra biñ laajee yonent bi yàlla tontu ci beneen saa ne wéyul yow ma isin lil mukazzibiin yonent bi nee na étincelle boobu ñu jógee ca safara sañuy wax daxaar mu ne étincelle bi rek tol na ni xam nga ne kon étincelle ba rëy na ah yàlla ne zaata lahabin ñu ne ko yàlla doy na nag mu ne wam raatu ñu ne mu ngóob nag lu ca jabar ca doon ba yàlla boole ko ci yàlla ne wam raatuhu jabaram ummu jamil la tuddoon ummu jamil ñu ne ah mu ne boole naa ko ñu ne yàlla kooku lu ci doon mu ne xam maa xata bi yëgu leen waaye man yàlla yëg naa moo daan taxal ay dëkk guddi di ko rangé fi yonent bi di jaar pour mu génnee jaar ci dëkk yi dëkk jam ko surux ay yaramam waaye yonent bi bu dee tëdd rek lu mu lëndëm lëndëm jëbi comme projecteur jëbi comme projecteur su génnee rek jëb yu reflété mu gis dëkk yëpp xam na ne mu jëm yi la ko fii def waaye day paqueté yëpp dem defu sori mu sànni ko moo tax bokk na ci ne yonent bi wax na ne ku rafet jikko li gën a suufe ci ay jikko mooy bu doxee ci yoon ba gis xeer bu mën a fakastal nit mu jël ko teg ko fu mu dul fakastalee kenn mu ne dina am tiyaaba bu rëy ndax ku amul bët wala ku bëtam neexul mën na jaayam fakastaloo ko gaañ yonent bi ne déplacé ko néew gis nga ko yow. dina bokk na ci xeetu ngëm yi gën a suufe ak xeetu jikko yi gën a suufe waaye jikko yi yàlla gën a naw ñu ne wam na at um ñu ne lu tax mu ne xamaalatul xatab moo daan yenn matt ya ak dëgg ya di ko teg ci yoon wi yonent bi di jaar ñu ne ko noo koy def mu ne fii jii di xaar xablun min masadi danaa ko yeew chaîné ko ci ay chaîne yoo xam ne juróom-ñaar fukki chaîne la chaîne bi ci nekk wërngal bu ci nekk toll na ni xasabu malaayika nee moom laa koy chaîné ba bépp dëgër ma dugal ko biir jahannam lu ko jàpp lu ko xool lu ko ko yóbbee ñaaw jikko ñaaw jikko ak gërye gërye lu ñépp ragal la wax nga ne maa koy wax bismillah jël nga torop te loolu rek la Sénégal di mën na man de dinaa ko wax aca waxal ngeen baal ma suñu mbokku jigéen waaw waaw danaa ko sabay sabay mbokk yi ak yooyu du ndam du ndam du ndam Serigne si nee tey nga xam ne maa la gën di mbaam mu ne ay mbaam ay bare rek te yàlla soxla wu ñu fa tey nga xam ne maa la gën di yàlla gën nga gën a bon mu ne mbonte bare rek te yàlla bëggul ko bon ñu ne ko nooy wax mu ne bu la nit waxee lu ñaaw wala mu def na lu ñaaw ne ko tey nga xam ne maa la gën a yiw mu ne waaye doo ko ko wax donc koo ne maa la gën a yiw mu ne du dëkk ñu ne ko nooy def mu ne danga ko koy wan ba mujj bi bët bu rusul toj maanaam ay la yëwét la fekk ay mosul yëwét dafa rus ay la yëwét ci li ma def yëpp yëpp yëpp te ba léegi mel na ni yëkkalu ko yaramam dëgg dëgg nag naa dellu gannaaw ci ma koy def moom la yàlla junj ca benn aaya alquran idfa billatii hiya ahsan fa iza alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim wa maa yulaqqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqqaaha illa du xazzin adim dinaa ci def benn taxaw moo di Alaaji Abdul Aziz ñëpp sopp nañu ko moom aaya boobu daal ci kaw Serigne Baye Abdou nekk dina ko ñëpp dégg nettali na ko ci sama gàmmu ñëpp dig te ka ko defoon billaahi wal kitaabi nii ma leen xamee laa ko xamee bi mu gaañoo léegi ça trois ans rek ci la toll xam nga kon gudd na fa xam naa ko bu wér mu ngi dëkk biir Tiwaawan moo defoon jëf jii may nettali paralysé nag lu mat bu ma bañul fen lu mat 40 ci kaw la lan jënd Tiwaawan ñëpp xam ne 40 man de li ma wóor moom mat na 40 ans yoo xam ne dafa paralysé ci kaw lalu la te jëf jii moo ko ko yóbbu benn àjjuma ku toll ni Alaaji Abdou Aziz ci biir kër Seydi Hadji Malick Alaaji Abdou ngi tëdd ci lal bu ndaw boobu mu daan tëdd ci suuf boo demee ci kër Alaaji Malick suuf sa ba léegi foofu kenn dëru ko ndax wala Maodo daan toog di jàngale ba léegi kër bu mag ba kenn dëru ko noonu la mel fa la Alaaji Abdou daan toog góor gii may wax fekk ko fa ba si àjjuma di waaj a jot may une heure jëm une mu ñëw rek dugg si di saaga góor gi saaga yu gën a ñaaw luñ nekk yàq ko ko sëñ Baye am doo nga fa sëñ Baye nee na may ñëw ñëw ci ku ñuy wax sa bàyyi lu neexoon la mu ne laa jóg ne ko Babacar boo jógee pour jëflante kii ma génnee la ci sama njureel te du ma ci de damay jël rajo Tivaouane bii ne Babacar bis ni tey juratuma suñ bay toog góor ga yaay jóg mu ne ko yow toogal surtout alburi la ndax teg nga rek loo foofu pour mu xëy ndax teg mooy yooyu ñuy yeewee façon xam nga bu jatal loo ko fóot fóot rek du dee mu xëy ndax dafa yàgg ci sambi fas ku bëgg a yëngu góor gi ne la toogal waaye li wax li ko dee daal dina wëral génn kër gi dem mu mel ni dañu am ci kër gi ñëpp ne pat góor gi jékki-jékki ne nañ leen waajal waxtu jumaa ji ñëpp jóg ñii jaar fii ñii jaar mu woo Pape daal chauffeur am bi yàlla na ko yàlla yërëm maa ngi nuyu doomam temps yéen ne ko demal indil ma 4 404 pause bi amoon na benn 404 pause mu ne ko demal indil ma mu indi ko mu ne ko mu ñëw wax ko yi fa nekk yëpp mu ne ko jëlal ma tant ci ceeb tant ci dugub tant ci suukar mbasin ya fa nekk génneel ma ci nangam ak nangam ay dampi mbasin nangam nangam ba kàkk ba euh, pause bi fees mu julli tisbaar ba noppi aju woote ci bi sëñ Baye Abdou ñëw mu ne woon leen ma Babacar li may wax ku wéet bi boo gisee sëñ Baye sëñ Baye Abdou nga sëñ bay nee na ma ñëw mu ne kaay leen gunge ñuy dem moom boobu desee na gis moo naan bi jaaral fii jaaral fii jaaral fii jaaral fii ba ñuy waajee yegg góor bi mu ne nuus loxol sëñ Baye am ne ko Babacar ak sa borom laa lay wax nag ndax maa la xamoon ne kër góor gii laa jëm si di nga ñëw mu ne ko biddaay papa du ma ne waaw kay loolu rek laa bëggoon a xam ci sa sincérité daal di ne wàcc leen ñu ñëw gaane ko góor gi ñëpp wàcc mu ne asalaamaaleykum góor gi mel ni poto bi asalaamaaleykum mu mel ni poto bi asalaamaaleykum ñetti yoon mu mel ni poto mu ne ko xanaa ko ami gan ne leen bismillah ko naa si leen ñu yegg si toog góor gi seet fa gën a suufi toog ñëpp toog ci suuf moom ne di ci ci kaw góor bi ne ko diw mu ne ah mu ko da nga ñëw ci yoor-yoor ca am noo jëflante ak man te xool naa ci sama xel yëpp ci li ma xam man ak man yëguma fu ma la mos a tooñ waaye doonte tooñ dafa sew mën naa la tooñ te yëguma ma bëgg nag nga baal ma fi baalu yombee laa lay baaloo ndax ba bëgguma ñu dem ba àllaaxira yàlla teg la teg ma. ñuy ñuy régler sama digganteeg yow foofa fay fa day jafe te xaw ma ndax man ab dinaa am lu ma fayee wala déet ma bëggoon nga baal ma léegi fii soo ma mënta baal nga wax ma lu jar bu jaree ma raamee fii ba kër mag ma def ma bëgg rek nga baal waaye nag nit waa góor bi wax ko ñetti yoon rek mu xaaju na moom waa yuuxu ne ko billaahi papa defoo ma dara dañ ma monté pour ma dal ci sa kaw diw ak diw mu ne ko bu lim bëgguma xam ñi la man yàllaa ko dogal bu lim kenn ma di ko ko xoolee la bu lim kenn dimbale ma lillaahi wa rasuli bu tudd kenn yàllaa ko dogal daal di ne ko dafa am na aaya bu ma doon jàng muy diree ko ci sama kow application bi yaa ma ko may tey baat boobu la utiliser góor gi gën a digg tubaab ñëpp xam nga alaaja mu ne ko application bi yaa ma ko may tey dama daan jàng ci alquran idfa billati hiya ahsan fa iza alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma wa ma yulaqaha illa alladina sabaru wa ma yu jógal te dem ci oto bu la kenn jàppal maa ko waroon a yenu man abdu ci sama bopp bii te amatuma kàttan mënuma koo yenu tuubalee ko ko keroog laa yëg ne ndekete baalu ak tuub benn te dinaa leen jox eh, misaal mu ne ko maa ko waroon a yeddu indi ko fii tuubalee ko gannaaw bi ma ko baloo ba noppi waaye amatuma kattan te màggat naa waaye yow mii kat yàllaan ma la saraxee ci sama deret ji ma bëggoon nag bu la jàppale demal ci nga futti sa garan boobu bii yellul ma saako par saako indil ma ko fii ba jeex sëñ Abdou ne sëñ Baye Abdou ne futeeku mu ko dem ca di ko yendu par benn benn di indi di teg di yendu par benn di indi di teg ba ñëw dee ko ne ko papa jeex na jërëjëf Babacar jazakallahu xayran dal dina ko lii maa la ko jërëjëf góor gi ne ko man loo may waxee ak li ma la def yëpp ku ne ko su sutura bii ak xéewal bii yaa ko may li ma am ci yàlla tey yaa ma ko may dal di sukk ci suuf ne ko ñaanal billaahi sukk ci suuf ne ko buur bi mu ne ko du ma la ñaanal yaa ma war mu ne ko boo ma ñaanalu ma xam ne dëgguwul ci yow ñaanal waa ji ne fàttee salaatul fàtti billaahi wal kitaab ñaan góor gi loolu ñëw dugg ci oto bi nag di woy aaya bi ba yegg ci kër di mingi nag mingi mooy di yëngal bopp bi di bi la ñi hiya ahsan fa iza alladi baynaka wa baynahu jabaatun ni'ma fa iza alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamiim wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xazzin adim buntu kër bu mag oto bi gaare mu jox seen Mbay loxo ne ko Babacar ah ndem Abdoulaye jamono mel nii mas seen bos mu ne ko waaye jël ngeen leçon ku leen ko def nii la mooy tax am cër ca yàlla ku leen ko def lu mel nii nii la mooy tax cër cër ca ku la ko def nga def ko ko loolu du loolu du ndaw te du jikko bu rafet jikko day rafet jikko day rafet yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñi ko yàlla taggee ci jikko yi muñ jikko bi gën a baax ci jikko yi mooy muñ ndax boo dul muñ doo defal yàlla dara sax waxuma nag nit ñi sa digganteeg nit ñi nit ñi daañ yàq sa digganteeg sa borom boo dul muñ boo tax alaa jëpp du gis ngeen li mu am lu ko ko may ñaar rek ko ko may wàcc ak muñ alaaji Maalik ko jur de waaye du moom kenn waaye tey boo nee alaaji Abdul Aziz wala nga ne sëñ Babacar Si ñëpp ne ëskee xaaruñ Maodo jur leen ñoo ko ñàkk dëgg wala du dëgg fa ñoo ko ñàkk te damay wax nag ne képp koo xam ne am nga sab sëriñ di ko tiitaroo ngir yàlla maa lay ñaan waaye sëriñ la murit bi jiitaloo sëñ Fall na roy sëñ Fall tiijaan bi jiitaloo alaajam na roy alaajam laayeen bi jiitaloo maam limaam la na roy Baye Ablaye Thiaw Laay bi xaadir bi jiitaloo Cheikh na Cheikh Sall na wala dé wolof moo ne lu di wuyoo da koy niru dinaa koy wax ma ne koo ne ñëpp a ngi naan mbay yaa ñu doy bu leen woy mbay yaa ñu doy Seydi Abou Bakar Bakari Karaman yaa ñu doy doo seen morom dëgg la de waaye yow ndax mi koy yow mi koy wax bu mbay ñëwoon dana la doy loo yow mi koy wax mbay fexe na ba doy ñëpp ci jikkoom yu rafet sëñ Fallou fexe na doy ñëpp ci jikkoom yu ba doomam bii Abdou Ka sëñ Abdou Karim Mbàkke ñu tuddee ko makaarimul axlaaq yéen ñëpp dégg ngeen makaarimul axlaaq mooy borom jikko yu rafet ñu tuddee ko ko yéen ñëpp dégg ngeen ko sëñ Fallou dafa am benn alaaja doo koy nekk nee na dafa am benn waaye sëñ Fallou xakim la woon bu yàlla baax alaaja bi sëñ Cheikh Tidiane si laa dégg ci gémmiñam mu ne Sénégal ñeenti ñi xamuñ seen xam-xam seen wilaaya lañ xam mu ne sëñ Fallou Mbàkke xamuñ xam-xamam wilaayam lañ xam mu ne Alaaji Cerno Saydu Nuuru Taal xamuñu xam-xamam wilaayam lañ mu ne sëñ Cheikh Mbàkke ne Cerno Ahmad xamuñu xam-xamam wilaayam lañ mu ne te borom ne xam-xam la sëñ Fallou mu ne benn waaye dafa ñëw ci moom ne ba Mbàkke saa ñëw rek moo ko daan defaral oto Mbàkke oto bi day rasul day làpp ñu ne sëñ Fallou jox ko lu takku mu dem daanaka ñaari semaine yi jot mu ñëw ne ko Mbàkke rasul bi yow benn taali bi ku ku dem nag moom ñëw ko Mbàkke kii da nax rasul ci oto daawul yàq ko mu ne waaye tukkal fële waaye ku ma ci nax ma jël xoolal moom moom rasulullahi la gis de gisul rasulu oto ay tukkal fële waaye man rasulullah ku ma ci wax ku ma ci nax ma jënd ah, te rasul war na yàqu te tax ma naan rasul ngay yàqu te xam na ne da koy nax mu nangu ko ndax bëgg yàlla am ci beneen waaye loo xam ne dégg naa sëñ Abdou nee na dafa ñëw ci fexatal rek di ñaan si ndimbal ci sëñ Fallou na bi mu toog sëñ ko toogal nga wax ñu ñëw ñu bokk nee na mu toog ba tàkkusaan ba timis di waaj a jot am xar mu fa ñëw it sëñ Fall na ko jëlal bi waaye jullit timis nag door a dem yaa mu dugg ci wanag bi nag di yeesal njàpp gis xaru yaar yi ci biir gannaaw wanag wi xam nga baadoo la du jub gàcce ne sàpp du <laughs> nee na mu ñëwaat daal di déy sëñ Fall ne ko Mbàkke man de ci xar yi laa bëggoon mu ne sëñ Fallou ne ko yow yow mi kat amoo mil xaw yow mi kat amoo mil xaw yow mii léegi nga fi ñëw xar mii léegi la fi ñëw ànd leen ci biir loolu moo doon wax naan dund gi doy na ma du yeneen bay fàttali te quatre-vingt quatre-vingt-quatre la mbokk la ci sëñ Fallou ndax sëñ Fallou léegi da daan dégg mu ne maay Sénégal ndax dafa bokk ak El maam maas kap moo jur Modou kap mu jur Mbaye kap nii may wax oustaz ne ma ma dem te moo koy nettali ci sama conférence la ko doon nettali boobu gàpp bi conférence la woon nekkagul woon gàpp mu ne dafa am bés mu seeti sëñ Fall sëñ Fall kontaan ndax mbokk bi nee na bi mu ñëwee bi muy dem sëñ Fall jox ko ci jamono boobu xoolal bi deux cent mille ci jamono boobu avant soixante-huit xam nga boobu deux cent mille xaalis la nee na mu ne xam nga sama mbaadoo la nee na ñaari semaine xaalis ba jeex mu ñëw nee na nuyuwaat ko def ci moom ay béy xam nga dafa mën a wuy nag mu ne ma ñëw ba nuyoo rek sëñ Fall ne ko kii du mbayka am mu ne ko eh, ah, ah, man la de man la de bàq mbayka yow ko ñàkk xamil xaw ñëw nga fi bu ñëwaat fi tey demal waay demal waay te liggéey demal waay te liggéey moo koy nettali boppam moom baykat mu nettaliwaat ma mu ne ma xam nga baadoola moom du jub gàcce te tàbbiwu ca ku ay ci boppam la woon moo lay wan ne nit yàlla biir la woon mu ne dafa mos a seet si sëñ Abdoulaye Amin ci appartement boobu moo amoon Dakar boori ministère de l'intérieur yal na yàlla dolli leeral nee na bi ma ñëwee sëñ sëñ Abdou jox ma 150 mille nee na ma toog une semaine ñëwaat mu jox ma 50 mille nee na bu ma fam xel xam nga damay toog ñu ne waaye dara mu ma toogaat une semaine ñëw mu jox ma vingt cinq mille nee na ma ne xam nga waroon naa toog nag dëgg-dëgg mu ne ma waaye mu amaat une semaine mu ñëw mu ma mbay ka da ngay yelwaan may yelwaan mu ma lu ma yelwaan jox ndeysaan ci ci ci nit yàlla yi seen mbaax yooyu yëpp xeetu mbaax boo gisee ma koy nettali pour ñu di ko roy ngir yàlla ñuy roy mag ñi ah man mii wax ak yéen nag lu ne xam ngeen ne maa ngi koy jéem jéem maa ngi waxuma ne maa ngi ca ba de waaye maa ngi jéem te yéen wóor na leen yéen. benn référence rek laa leen di joxe moom ngir ngir tàgg sama bopp benn référence ak exemple laa leen di jox yëpp ngeen ne golo bu jub dal ci sama kaw mos ngeen maa dégg ma riposte wala ma ton te maa leen gën a pànk maa leen gën a wuyu maa leen ëpp lu matuwaay yu ma defalante ak ñoom mais jaru dara la preuve est là du lu ñuy laam laami moo tax nit ñi jaruñu topp te boo mënoon sax bër bu set nit ñuy wax yow dina saatante billaay ci ngay njëg boo demee ca euh, kifaayatu raaxi biir Seydul Xaaji Malik mu ko fay wax mu ne yàlla jël bi sarax ko nit ñi ñu lay saat jikko bi gën ci jikko yi mooy muñ wasbir wa maa sabruka illa billahi yàlla li mu wax yonent bi ci muñ du jeex moo tax muñ boobu laay jël ñeen ñëpp kenn ku ne na na natt boppam fu muñam toll foofu la toll ci yàlla kenn ku ne ci yéen na natt muñam fu mu toll ci yàlla rek foofu la toll gis nga maa ngi leen ñaan muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw billahi wal kitaabi ku ci muñ yàlla lay fayal yàlla wax na ko wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr wax na yonent bi place yu bari ci muñ yonent bi sëkk na di julli ñu fekk ko fa sotti ko sabri sabri mooy màq ngërëm bu nëb bi am juróom-ñaari fan sax yaar yëpp ñu sotti ko ci kaw ba ca mujj Sayyidatuna Fatima moo jooy ne ko papa lii nag util ndimbal te dafa sëkk di julli benn yow fekk ko sotti ko saaku suuf ci wax yi saaku suuf ba daanaka ne ne fi yonent bi sujjutoon mënatoo xàmmee bopp bi ak suuf si ndax suuf mu sikki taaye sën na fëgg njañ bi dem set Seydatuna Fatima jooy ne ko papa lii lu ko jàpp dama ne wuti ndimbal ci say nijaay mu ne ah jot na nag jot na moo ko may lim am imaam jaaxle na ko léegi muy rañaan mu dem taay ne damay uti dimbal ci samay nijaay ko am kër nde baay am nga kër ndey naa dem sama kër ndey ñu dimbale ma jox noo nekk taay ndeke ñoo ñu yàkkamti woon ne pour def ko lu mu ñëw fekk tàggat nañ seen xaj yu man a màtt ya xale yu réew yi ak dof yi seen xel yi nit ñi seen xel yi neexoon ñu tuddee leen noonu ay dof teg leen ci buntu dëkk bi ne bu ngeen séen mu génn ci buntu bi rek acca na xeer yi dal yonent bi di ko di ndimbal ci ay nijaayam naka la jub rek xeer mel ni euh, mbàccul gerte pour pour pour pour waaye benn laa nar rek am na lu tax benn échappé ji rek dal ci yeelam yeel bi foofu commencé di naaj ci biir ne cëpp ci kanam ne ko sa borom sa deret buy toq ci suuf mu tukkal àddina ndax du ko attan moom yàlla ndax fi mu la nekk wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima yonent bi xam ne ci di wan di as deret yi di naan di ko as doxee tuuti as deret yi naan ba dugg benn labbe labbe bi fajal ko ko takkal ko Jibril ne cëpp ci kanamam ne ko sa borom nee na ca dëgg ñii niñ la def ëpp jox na disposition lépp lu pour nga wax loo bëgg rek mu def ko immédiatement nee na bi ci gën a gaaw nag mooy ñaari lax sa banna yi mooy montagne yi gën a mag joxeel ndigal rek neel waaw rek ñu boole leen taay écrasé ci carte bi doon waxuma naan ñi ko dëkk ñu ne Jibril ne ko comme yow yàlla ñim am ci malaaka ñëpp a ngi mer yàlla ci boppam daanaka kenn xamatu ci ban état la toll yow ngay ree looy ree mu ne ko dama bëgg yow mi ñu yónni yow dañ laa yónni rek dama laajal ma ki la yónni moom merul su fekkee merul rek man meru ma Jibril dem sa boromam ne ko man meru ma mu ne ko wax leen na leen jéggal innahum na leen jéggal innahum xawmun laa yaalamuuna ñoom xeet lañ wuñ xamul maay kan waaye yàlla xam na maay kan yéen malaaka yi xam ngeen maay kan wax leen mu jéggal leen ndax amaat na ñu jógee ci seen ndigg yi ëllëg gëm man mi yàlla yónni te loolu laa ëpp bénéfice yàlla écrasé leen lii bi di ko ko ci la ko yàlla ne kaay bi nga xam ne maa la gën mi la bind acca dellu màkk bi muy dem boobu mu ngi doon jëm kër ummu haani bu ummu haani jigéenu Seydina Ali la ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar moo ko invité woon reer yonent bi mu laaj yonent bi loo bëgg yonent bi ne ko toggal ma fukki cere ak meew meewu gëlëm mu defaral ko cere mooy sunguf ak meew bi yonent bi du dugg Jibril ne cëpp ci kanam ne ko sa borom nee reer boobu tey doo ko reer mu ne ko lu xew mu ne ko nit déggee ci yow li nga tontu ak nit kontaanee ci yow ak muñ gi nga muñ téelal gis asamaan yëpp fees ak i mu ne ko xoolal sa ndeyjoor mu xool ndeyjooram gis lépp di ay malaaka mu ne ko xoolal sa càmmoñ mu xool lépp di ay malaaka mu ne ko xoolal sa penku xool lépp ay malaaka mu ne mu xool lépp di ay malaat mu ne ko Jibril lii na wu ne ko sa borom nee na dafa bëgg ci yow ndax muñ bi nga muñ daf lay récompenser daf lay fay fay